carte membre bu ko defee kon ñun ñëpp nañ bàyyi xel képp ku amagul carte membre 2022 à la kuléal carte yaa ngi nii képp ku teew ci tànn bi te bëgg a bokk ci asos bi carte yaa ngi nii à la kuléal ñu jaare monsieur le maire mën nga jokk benn benn carte moom ci bokk na ci association bi kon nag balaa ñuy tardé ñu continuer sëriñ bi lañu jox kàddu gi di wax mbooloo mi ne bushra bushra liman shahidat tajammuaha huna wa ya'i al-mawa'id kullaha kalabibi di wax ne xubbul mashaayix thumma taa'atu rushdihim سرعان ما يجني أعم نصيبي ولقد أتى شيخ الشيوخ مبلغا عن ربنا المتفضل المحبوب والله أهلا بشيخي بالكرام جميعهم أبي الأفاضل صاحب التأديب والله يشكر سعيكم بسلامة يا عبد ملك محسن التدريب فرحين بالإخوان جاءوا معكم فجزاكم المولى بخير كريم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته naaw bu mu nuyoo kenn ku nekk ndokkeel leen ndokkeel beneen yoon sama bopp ci bés bu barke bi ak jotaay yu yiw yii jotaay yi nga xam ne am sikk ne jotaay yiw la te rob na ci xadis ne benn jotaay yiw dana kaatara ñaari junne jotaay ci jotaay caaxaan mbooloo moo fi dajee jugee ci barab barab ay barab yu fasantikoo ci région de Kaolack ak Dakar ak ci yeneen i barab kenn ku nekk bi ñëw dafa wax ne maa ngi dem julli ji jumaa ci ci jumaa bi nga xam ne dañ koy daloo def euh, wadifa def fa dikru jumaa ñu tudd fa yàlla loolu amul si sikk ne alhamdulilah comme ci jotaay yi nga ne léegi nag wax ji du mën a gudd lool ndax lépp lu waroon a wax alhamdulilah suba ba léegi ñi jox kàddu wax wax nañ danaa gërëm waa yep bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw danaa ne lu am fu dalee te am fu ñeer bu ñu mënta ñàkk tudd ñoo bu mu leen ci imam ci tudd di borom xam-xam boo xam ne saa yu jibee dana jeexital dana xiir nit ci mbaax xiir leen ci njub xiir leen ci jaamu yàlla ba pare ñaanal leen te amul sikk ne fi mu toll nii yàlla rus na ko ndax al kabiru huwa allahu aw man ki mag na mooy yàlla wala ki yàlla man mu ne daf koy def mag ñaan nañu ci jumaa wax na wax ju jotal lépp lu ñu ñaanal yàlla ko yàlla nangu waaye moom it yàlla ko yàlla may wér may ko gudd fan ay ñébétam ak yaakaaram lépp yàlla na ko ko yàlla dëggalal ñu ko nuyoo danañ ko gërëm tamit ci àddiya yi nga xam ne àddiyal na ko alxalifa Cheikh Mouhamadou Mahi ak Cheikh Mouhamadou Mounhamina ak jaamu xeeru bi muy ay xar yoo xam ne mooy bi yàlla jotee woon yonent yàlla Ismaïl ñu jugee woon aljanna ba mu ko diggalee ne ko na ko rayee na ray doomam ku tabaskee ko mu topp ndigal yàlla li ko yàlla gërëmee xarala ko yoon yi te aljanna yi ñuy gis yëpp ci àddina ña yi ñuy gisul tamit ña waaye yi ñuy gis bokk na ci gëlëm bokk na ci nag te yu rëy leen te bëri ndawal waaye yàlla moo xam ci xam-xamum moom bu jël xar weccee ko doomu aadama kon boo jëlee ay xar teralee ko Cheikh Mouhamadou Mahi ak Cheikh ak sa mbokk ji mooy ne nangul nañ la sa teraanga rëy na ci ñun ndax lu màgg la ko yàlla muy li nga def ñu ñaan yàlla yal na la yàlla fay te yàlla na ko yàlla gërëmee ba pare dañuy gërëm borom dëkk buñ ko tuddee bàyyiwul kenn ci ñu yeewoo ci dëkk bi góor ak jigéen mag ak ndaw buñ ko gërëmee moom borom dëkk dañuy gërëm monsieur le maire Babacar Diop. maire Gént Kay bi nga xam ne discours am ñun ñëpp dégg nañ jotal parce que moom wax na ma ma poste de santé bi nekk fii su paree sage-femme bi nga xam ne moo fiy ñëw waa dëkk bi ñoo ko waroon a daggal salaire di koy fay waaye moom pare na ci meereem bi mu nekk ni moom moo koy fay pour ñu ko defalee yeneen dëkk yi nga xam ne ñu ci tund wi loolu bichaara la mbégte la ñu ñaan yàlla yang ci àgg ak jàmm te di lay ñaanal yow sa bopp yàlla responsabilité bii ñu dénk la yàlla na ci yàlla defal lu kawe sa njort ñu la bëgg ba fàll tamit seen mébét yàlla na leen ko mën a di wax président moom assubu ñun ñoo war a góorgóorlu accélérer liggéey poste de santé bi lu gaaw ndax ndimbal na ca fekk loxol borom su ko defee lépp loo xam ne jugee ci monsieur le maire wala mu jugee ci état nekk ne ndollal lay doon ci ñun te nii ñu soxlee jumaa ji yàlla dafa am ci taw fekk mu pare nga xam ne ci jumaa yi tudd ci yi gën a rafet ci tund yi ci la bokk suñ continuer bañ a taxaw danañ mm, mën a taxawal poste de santé bi ak leneen te dem rek wala deelu gannaaw moo am ndax ku avancé wu yaa te ku yem foofu ak ñeneen beneen dem la bu boobaa ba balaa des gannaaw yàlla ñu ci yàlla musal ñu ngi sàkku ci doomi ci béy ñu nekk ci biir ak képp koo xam ne adhéré wu doon ci association bii gannaaw tey ñu góorgóorlu bokk ci jënd carte membre yi condition yi nga xam ne ku ci bokk noonu nga war a doxee tamit nga respecté ndax ñi ñu mébét ñu mën koo dëggal benn nit ñaari nit ñetti nit ak mu bëri nga bëri ni mën naa mënu ñoo def dara waaye mbooloo moom fu ñu yëkkatee mbool rek mën nañoo def lu rëy kon ñi ci nekk leen di sant leen di gërëm di rafetlu seen taxawaay nga xam ne maanaam bi la ko dañuy lu bëree bëree bëri loo xam ne macha allah ko ñu ngi ñaan ñaan yow moom mooy leen kàttan ngeen continué ko waat pour ñu ci nekk ñu ci bokkagul ñu leen ciy oo di leen wax ni yiw la rek te alxuraan ci ñun ci ci mbaax ak ci topp yàlla naa gërëm délégation bi jugee Medina ci njiital Cheikh Mouhamadul Bachir doomi Cheikh Alhaji Mouhamad Zeynab ak mbooleem rakkam ak sama xarit yi nga xam ne sama wëndaleeg noonu démb la ay soog di ñëw ñoom ñëpp ñu bàyyi seen itte li ba ci am démb waxtu wi ci yoonu Dakar la fekk tey dafa waroon a liggéey ñu jël oto bi ko jël ay nit def leen ci pour ñu teewee bés bi am ñeneen ñi wante moom bi añee ba pare dama ko bu góor na yeewee mu mën a déedéet man mën naa laa xaar te yow moom foofu jëm dem moo ko moo taxoon gis naa ne bu ñuy jaay carte membre yi ci ñu ci njëkk jënd la bokk kon maa ngi koy sant sant sama mag yi nga xam ne ñëw sama jarbaat sama ni mbay jaw kon para pemimpin bi muy servir gan yi ñuy naan ataaya ak Ousmane yi nga xam ne bi ñuy xale bu ndaw la jógee Nigéria ñu jox di gërëm Pak Suni doom ay retoog jabar yi Cheikh Mouhamed Khamid doomu Cheikh Al Fata Abdoulaye di gërëm gan yi nga xam ne woo nañ leen invité nañ leen ñu jógee ci ay barab yu fasante ko ci tund wi ñëw teewe bés bi taaral ko ndax mënoon nañu liggéey bi ba pare duñ gis ñu ñu uysi ay jumaa ji fees na dell alhamdulilah rabbil alamin ba bi ci jumaa ji tamit fees dell di gërëm suñu mag Cheikh Mouhamadou Ibn Hamdan nga xam ne mos ta uute conférence bi man maa ko ñaan ni ko mu jiite jumaa ji alhamdulilah mu jiite ko yàlla defal ko tawfiq defal ko lu doy neex العالمين waajur bu Cheikh Ibrahim yàlla ya na ko bàyyi fay ci boppam ak ci njabootam ak ci ya, képp koo xam ne aju ci moom di gërëm sama jabar sama kustaan Oustaz Mouhamed Mahmoud bin Niama bin Abdullah nga xam ne وبين واختي each other jëriñu leen ci lu yaatoo yaatu comme ni ko waxee man maa sàkk woon mu wax ci arab ni traduire ko wante mu ne moom dafa am ay chaque dimanche xeetum benn fauteuil kursi lañ koy tuddee ñu indi haut-parleur ñuy jàngal kenn ku nekk daf lay wax nga toog ci fauteuil ñu làkk arab li ngay wax yow yaa koy tànn mais nga nekk ne arab ngay wax luñ ci jublu ñu miinal leen mbooloo ba pare ñeme loo leen ñu ñuy làkk arab ndax langue ni dana ko mën xam condition yi ci nekk yépp ne daf koy ragal a làkk te ñu ñemewu koo làkk di koy yàq ñu ko koy defaral du ko mën mën naa mën langue bi mën koo làkk te ñu ko yàq mais bu tiimee ay nit ngay wax loolu la bëgg a dund ci ñoom moo tax dañ lay wax ne lan na nga toog ci fauteuil yi nga làkk soo ci toogee minute yi ngay may 10 ba quinze minutes soo waxee dara ñu déglu la soo waxul dara tamit ñu noppi di la xaar ba quinze minutes yu jot nga wàcc jox sa morom sa morom boobu di ñëwaat di wax moom moo lay xiir ci bu beneen yoonee nga préparé loo xam ne da nga koy wax parce que da nga naan ak ah yi maa moom ñu normante lu mu war naa koo mën donc méthode la boo dafa bëgg ñi aju Cheikh Ibrahim sañ mën di wax arab duñ leen joxee micro rek te duñ ci am benn problème ñu ngi jàngale kër waajuram bés bu set ñu ngi jàngale ci mahad alxaaj abdallah Niass di jàngale ci madrasat cheikh Mouhamed Mahi ibn Seydi Alioune Cissé ñu koy ñaanal yàlla yàlla fay ko ndax loolu rek moo ko Mauritanie mu bàyyi ñëw pour liggéeyal bàyyi ci loolu ndax bàyyi yoon yi ko mën a liggéeyalee dafa yaatu ki nga xam ne alal la ko yàlla may mën na di seet lan la mën a def mu def ko waaye bi bàyyi gën a bëgg mooy xam-xam mooy ki am xam-xam mën koo joxee ngir yàlla ak bàyyi boobu la bàyyi gën a gërëm ndax bàyyi taalifut ci kuy joxe alal waaye ñun ñëpp xam nañ ne taalif na ci xam-xam wax ne moy njiit moy téeréer bi benn tafsir anaam fi am leen ay ma ruwal imaam tam tam mooy njiit nga leen du njiit ci loolu la nekk yalla ko yalla fay yalla dëgël ko bu jaay rasulaay alayhi salaatu wasalaam di sant di gërëm Cheikh Fall sant ak ma ni yaatu ak yaatu boo xam ne ma taxawaayam ci dimanche man sama bopp xam naa taxawaye ci sama tool yële ci ter ay dama ko ni ko pour ñu jël mbooloo fii ci yu ko len lu bir ne dañ na ko defal ci kaw lu weesu lu ma ko bëgg maa ko ñaanal tam ko yàlla barkeel yàlla barkeel ñu liggéeyam yàlla barkeel yëngatoom yalla barkeel balaw Abdullah ni association bi jokk mbokk lañ tuddee seen bopp jokk mbokk nak mbok yalla dafa wax ni mom yalla moo ko bind dagal ko tur ci turam ni mom yalla yalla mom moy rahman ngeen mbok def ko képp ku ko jokk ma jokk la képp ku ko dagg ma dagg la te ñun ñëpp bëgg nañ yàlla jokk ñu ñëpp amul kenn ci ñun ku bëgg yàlla dagg la ndax ku yàlla dagg fuuti la kon war nañu gën a bàyyi xel ci association boobu gën koo dëgëral di sant di gërëm waa daayira bi Mutahabina Fillah te Sëñ Abdoulaye Thioub di xew ci Medina jàppalante bi nga xam ne ñu ngi koy jàppalante ak man maa ngi leen di sant bu bëri di leen di gërëm di ñaan yàlla ñu fay leen Imam yang pewalamai Uyar Mati tubuh dan lokot sabun Untuk ci njabootam njaboot boobu yaru ci Enyembi Masau John, Iloyen Wachwe, Minek Fichtetui, Minek Dakar, Minek Af lan la allahu akbar di firi ndax bi ngeen tabax seen néeg yi seen kër yi gënu leen benn kër tabax ko comme ni ngeen tabaxee jumaa ji kon mu ne yéen nangu ngeen ne yàlla mooy màgg loo tax ngeen defal ko loo xam ne defalu leen ko seen bopp ñu ngi leen di masawu coono nag liggéey bi ku koy natt mën na ne yàgg na yàggut ci tabaxu juma ndax ci juróom-ñetti at lay toll suma juumut juróom-ñetti at xaalis bu bëree bëri dem ci jugee ci ñoo xam ne ñi ci ëpp ay baykat la seen yaakaar mooy nawet bu baax ñi am luñ jaay jël ko def ko ci jumaa ji yàlla ngeen defaloon lii yàlla nu leen yàlla fay boppam bu leen fayee boppam ba pare tibbal leen yàlla nu yàlla fay boppam ma bañ cee génn sama bopp bu ñu fayee boppam ba pare yàlla ñu tibbal ci magasinam yi bañ gërëm buñ gërëmee yàlla nañu dolli xeex bu njëkk ba ñu ko daan xeex biti la nekkoon mais léegi dañoo bëri lool Sénégal amul tund wooy dem te nekkul te dañoo yàkkante am image boo xam ne bu koy xeex foofu la ñuy sukkandiku pour xeex jigéen ñi dañ daan julli ci jamono yoonu sallallahu alayhi wa jumaa ji saxaaba yi dañoo rafle ba nga xam ne am na ñoo xam ne buñ sujjootee seen awra yi day feeñ jigéen ñi yonent na leen dañuy yéex a ci sujjoot balaa ñuy gis awra saxaaba yi kon kenn aayowu ñu dugg ci jumaa ji waaye dañ leen a war a amal barab boo xam ne bu duggee jumaa ji dañuy xam ne fii mooy seen place mais du sàppee boo xam ne benn barrage rek mooy nekk ci digg bi si moo moo ñu séparé mais bu image bi génnee barrage boobu sax mën nañ koo dagg pour wane ne góor ñi ak jigéen ñi ñoom ñoo taxaw ci benn sàppe pour am lu jamee sufiyanke yi wala tijaan yi wala toppam Cheikh Ibrahim loolu nañ ci bàyyi xel bu baax baax sikar bii sikarkat yi doon sikar avant may jël micro bi

te daan ñëw ci guddi àjjuma kër Alaaji Abdoulaye Niass ah Jimba Faye ak ñeneen ñu dul noonu suñu tuddee yàlla yàlla rek la ñu tudd duñ ko boole keneen nañ bàyyi xel bu baax ci loolu ndax fi nekk nii lépp lu waay def fii ci dëkk bii nii nga xam ne boolewuñ ko ci dëkk yu mag yi balaa am trente secondes mën naa dugg Europe dugg États-Unis rawatina nag pour muy war Sénégal ñun nag bokkaale yàlla ndax nangu nañ ne kenn la amul benn la nangu nañ ne moo njëkk moo mujj moo feeñ te moo nëpp nangu nañ ne lépp lu am rek yàlla moo ko amal te kenn dimbalewu ko ci gëm nañ ne kenn la gën nañ ne kenn jurut ko gëm nañ tamit ne jurut kenn gëm nañ ne moo ñu indi ci àddina bi gëm nañ ne danañu fi jëlee gëm nañu gëm nañ ne danañu géewal des pénc gëm nañ ne moo yónni yónnent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw nekk kii tëj yónnent yi jiitu woon amatul beneen yónnent bu ñëw gannaaw seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ci diine jooju lam ñu indil nañu ci yàlla la jógee nangu nañ ko gërëm nañ ko teg nañ ko suñ kaw bopp fonk ko mooy ne nañ seede ne yàlla kenn la seede nañ ne yàlla kenn la nañ seede ne moom sallallahu alayhi yàllaa ko yoon seede nañ ne yàllaa ko yoon nañ julli julli juróom ay jullit lañ ngi julli nañ oor weeru koor ay jullit lañ dañuy oor nañ génne asaka képp ku am ci ñun lu denc ba mu mag génne asaka danañ ko génne ku ko amul tamit mu ngi saraxee donte saraxee tuut farata boo ko deful kenn du la bindal tiyaabu kenn du la bindal bàkkaar mais boo ko defee ñu bindal la tiyaab gëm nañ ne aj màkka dafa war bépp jullit boo xam ne góor la am na kàttan bi am na am am bi ba ci ñun ñi nga xam ne amuñ kàttan amuñ am am bi sax danañ aji fekk aji waru waaye rek ngir matal ponk yi nga xam ne mooy ponk lislaam waaye tamit ngir taxaw ci sang bu tedd boobu di sayyidina Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sallam ne ko asalaatu wasalaamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah loolu nag mooy yoon ki nga xam ne moom lañ yaakaar mu Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ndax moom moo wax nu salli kama kaana nabiyu musalliyan nasuumu kala naqfu sabila sumayda'i wa nunfiqu la nubqi nuridu siratahu naxujju ka xajjin haashimi muttaba'i نكرر حقا لا اله سوى الذي له الخلق والامر العظيم ثم المعين موي لي موي دينا جيباي دانك نكو في كيب كوني اسكان فنن بو خامل دوت في يان ني تور يالا رك لين گن يالا رك لين بو اي تيجان لي ناخ سيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه mi nga xam ne mi ngi askanu ci yonent bi askanu bu wér nekk borom xam-xam bu mag jàng jàng jàng jàng ba bi muy am ñaar fukki at lépp lu ñu war a jàng jàngal na ko jàng na ko ba boo ko posé question bu lay tontu dafay mel ni daf koy xool ci luñ bind ci kanam waaye. doy ko dafay dem ni outil yi nga xam ne góoru yi ya am ya. nañ ko loolu mooy lan mooy dafay outil yàlla ndax Seydina Ibrahima alayhi bi muy bàyyi soxnaam Màkka ne ko ngi dox jëm ci ne dafa ci barab waaye mi ngi dox dox boo xamante ni daf koy àggale ci boromam dindil ko kiiraay du mu am jano Sëriñ Cheikh tamit ci loolu la nekkoon jàpp ci ay sëriñ yu bëri bu yonent bi sallallahu alayhi wa feeñu ko nekk bépp wér bu amoon na ko bàyyi man maay sa sëriñ bi yar ko jox ko ndigal ne na ko joxe ñii weddi nag dañoo jàpp ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi génn àddina fukkeeli at ci gàddaay bi ñoom dañoo jàpp ne mënatut a jëflante ak kenn ndax dañ koo def kenn ku ordinaire koo xam ne maanaam bu dee am na lu bees ci moom xëy na ay yaxam la waaye nekkatut yonent bi sallallahu alayhi wa moo gën a màgg lool ndax moom moo wax ne képp ku julli ci man nuyu ma foo mën a ne am na malaaka yu taxaw di ma wax ne ma diw sàngam ca barab sàngam mi lay nuyu yonent bi delloo ko fay ko nuyu gën ko nuyu kooku nag mën ta fàggu bàyyi wax na ne yàlla dafa nekk ku nekk ci jëmmam ko doon weddi ci arab yi ne ko ci xam-xamam bàyyi ne ko sifa yaa faaraqatil mawsuuf batalat sifa wa batalal mawsuuf nit ak melokaanam bu ñu tàqalikoo melokaan bi demee fee nit ki demee fee nit ki nekkatul li nga xam ne moom loolu te yàlla waa ji daf doon dëggal ne yàlla dafa nekk ku nekk ci xam-xamam waaye léegi bu ñu jëlee xam-xam bi teg nii yàlla nekk ne kon yàlla dootul amati xam-xam xam-xam bi mënta daaxaan koo ak yàlla bàyyi na ko làkk arab amul sëkk ne moo gën a riche làkk yi ndax ci la alquran wàcc yow sooy julli iyaaka naa bu doo iyaaka na saay ndax arab dana wax iyaaka koo xam ne dafa absente mun na ko déedéet mun ko man ngi nekk ku nekk ci jëmmam kooku ne ko haadihi akbaru min uxtiha bii moo gën a màgg sax bi nga waxoon loolu nag lu ci sa lu ci sa preuve mun na ko képp ku dee bi nga dee sa bàmmeel ñaari malaaka dana ñëw yëkkati la teg yonent bi laaj la loo xam ko ñaata nit ñooy ci cerse cerse mu gën a tuuti na ko da ngay julli waaw da ngay salaamu aleyka ndax arab dana wax salaamu aleyka ku fàttu mu ne déedéet ndax nga kon yoon fi mu ngi nekk ku nekk ci jamono waa ji na ko beesalal ma sama liimaan waaye beesalal ko liimaan kooku moo ñu wax ne yoonu sallallahu alayhi wa sallam muy sidna cheikh moo ñu wax ne yoonu sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox tariqa bi jox ko ndigal na na ko joxe mu joxe ko sidna cheikh moomu moo waxoon ne تأتي الفيضة على أصحابه حتى يدخل الناس في طريقتنا أفواجا أفواجا تأتي هذه الفيضة والناس في غاية ما يكونون عليه من الضيق والشدة fayda dana feeñ sama topp nit ñi dugg tariqa bi ay kuréel kuréel kuréel fayda boobu noonu wax yu muy feeñ nit ñi dañuy nekk ci jafe-jafe ak ci xat-xat majaazan balaa bàyyi feeñ am na ñu bëri oote woon ne moom lañ waaye dañ doon xàllal yoon rek pour bu bàyyi ñëwee ne moom la ñu du lu bees am na ñu ko doon faam waaye moom bu ñu ne moo mooy borom Kajoor bi dafa bind kaay suñu dëndaas firndeel ci luy wane ne moom mooy boroom fayko bi ba pare mbooleem magi tariqa bi jamonowanteeg moom ñoom ñëpp dëggalal nañ ko ne ko yow yaay borom li ko yëkkati nag muy fayko bi mooy lenn yoon wi nga xam dafay dem ci yàlla ndax bàyyi daf ne ko waytu wa saxaltu tariqa ila alxaqi li kulli muridin waxsilil xaqi bilxaq mën naa taxañ naa yoon wi jëm ci yalla ñeal bëpp murid bo xamne ne dafa nam ma ag ci borom bay mu ne murid moy ku nam yalla ne bëgg xam yalla ne dana ko xam bëgg am yalla ne dana ko am al murad mom moy yalla mu ne kooku bu jappé ci yoon wo bayu faw dana àgg ci yalla bu njëkk ba nak nit ñi dañ daan sonn pour xam yalla mënoon na leena dik ay at du jeex di baye feeñee jamono ji xam nañ ne lu nekk dañ ko taxañ dañ ko len lettre yi nit ñi daan bind diko ko poste pour poste ko mu dem ci kenen tay ku dem poste xey doo fekk ben lettre ndax lu way bëgg a bind rek mën nga ko yone ci sa téléphone par SMS par email par WhatsApp par dara manam ndox bi dafa gën gaaw bayi tax bàyyi moom it mu ne lem naa taxañ naa yoon ñu xam ne muy jëm ci yàlla te loolu li ma koy defee du ma leen salikina bila kaddin wala nasar sharia gu leer naa ñi ñi ay barut ak ay lan di jox su biar duduk بظاهر الشرع شريعة كلها ناني ونور مبين ak leer bu bit rabbi salikina bila kadin wala nasab ci lay tagat ni may tagat dama la yene ni sen borom ni ci lu am ben ciom lolu yalla moko ko jagle jullit boole ñu ci umma bi gën ci umma yi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas boole ñu ci mujjanteeli umma bi yonent sallallahu alayhi wa wax ne sama xeet comme taw la kenn xamul ñi jiitu ak ñi mujj ban moo gën ba ñuy tànnal tariqa tamit daf ñoo boole ci tariqa bi di tariqa tijaani nga xam ne bàyyi xutbala Suudaan wax ne sant leen yàlla bi mu leen boolee ngeen bokk ci tariqa bi da ngeen xam ne tariqa bi dafa am ñu ko yàlla baaxe woon ca ësël ku ci bokk toon doo ci bokk mukk ci ëllëg balaa mbindee fi di wàcc fii nga xam ne ay arwaax la lañ woon fa la yàlla jëloon benn nombre na ñi nekk ci jaan ku su doonu ci jaan ci jamono jooju doo ko ci aamun naasu mu ne leen bu taxutoon ak loolu képp ku am xel dana ko nangu ndax tarixa bi dañ koo tabax ci sunna ak ci ak ci alquran banu yàlla la ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi ak tuddu yàlla yii ay aaya ñëw nañ te sàkku ci jullit ñi sant ko bi ñuy boolee ci borom faydu bii nga xam ne sidna cheikh junjoon na ne dana feeñ te bu feeñee ay kuréel yu bëri danañ dugg ci faydu bi ku nekk xam ne ne topp cheikh Ibrahim yi génn nañ frontière Sénégal génn nañ frontière Afrique daj nañ àddina bi gàmm yi paase ci dëkk Afrique yi rawatina Nigéria gis gàmm gii nii paase bërki dem ci Nigéria dana xam ne ñi sidna Cheikh junjoon na borom fayda bu feenee noonu la ko nit ñi di ñëwalee danga xam ne dëkk dëgg yàlla ci waxu Cheikh Ibrahima Niass la ko wàcc loolu nag ngëneel yàlla la moo ko jox ko ko soog kenn mënu ci daal te loolu la yàlla def kon nañ ko sant ci bi ñu boolee ñu bokk ci ñun faydu boobu moom di ñaan yàlla mu def ñu ñii ay taalibe ndax bés buñ nekkee taalibe suñu tijaan yeetu dañoo nekkee taalibeem suñ doo ak jullit dañoo wér ndax bu ñuy tijaan rek yu wér faw dana ñaar setti julli ndax tariqa bi moo koy jël danañ la wax ne danga da nga sàmmwante julli juróom yi ci laab lu dul am ngànt ci julli mooy li nga xam ne moom la ñuy ci balance yawmal qiyaama su matee jëf yëpp mat su manqué dara du baax condition yi tarakat bokk na ci da nga sàmmwante julli juróom bu loolu amee kon dañuy nekk jullit te boobaa danañ topp Cheikh Ibrahim te moom yoon sallallahu Alaihi Wasallam sallam la topp ndax moo ne yaa saar xayb naa sirtu wara aw wa in xalla yowma fal masiru baidu lii nag dañ koy tudd ngir fàttali wante waaye tamit ngir sant yàlla ci buntu wa amma bi ni'mati rabbika Hadith te xéewal gënta màgg xéewal bii di ñaan yàlla ci yàlla saxal yàlla def ñi ay taalibe dëgg dëgg taalibe yàlla ñi yàlla may ngërmaane bàyyi radiallahu anhu ak ngërmaane sibna cheikh radiallahu anhu ngërmaane yoonu sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu yàlla may ñi xam ku dëgg dëgg xam yàlla ñu yàlla may ñi xam yonentam ba dëgg dëgg xam yàlla ñu yàlla may ñi xam wàllu yoon ba dëgg dëgg xam yàlla ñu yàlla may ñi xam xalifaam ba dëgg-dëgg xam yàlla ñu yàlla may ñu bëgg ko bëggee bu amul fu ñu koy natt yàlla ñu yàlla may ñu bëgg yonentam ba bëggeel bu amul fu ñu koy natt yàlla ñu yàlla may ñu bëgg wàlliyoom ba bëggeel bu amul fu ñu koy natt yàlla ñu yàlla xamal yàlla nañu yàlla xiir ci jëfee lu baax lañ xam yàlla nañu yàlla musal ci réer musal ci képp ku aju ci ñun suñuy njaboot suñuy jegeñaale suñuy xarit suñuy soppi yàlla nañu yàlla nangul lépp luñ ko ñaan kenn ku nekk ci ñun bu toogoon di wax yàlla ay soxlaam fii ba fajar soxla yu wute lool du dara ci yàlla bu defal ñu suñ soxla ñun ñëpp te du wàññi dara ci ay magasinam moom moo am lu nekk te doyowu ko dara ñun ñoo amul dara te soxla lu nekk luñ soxla ci yàlla yàlla ñu ko yàlla may te buñ ci am benn soom buñ ci am benn coow ni feebar yalla leen yalla saafara ñi jaaxle yalla yalla dibi dindi seen ak jaaxle ragal yalla na leen yalla tekki ni ragal ñi am bor yalla ko yalla fay ñi am soxla bu mën di dool doom lu duut mo yalla duut lu yaq mbokk yalla nan leen yalla fajal seen soxla yalla borom kër yi yàlla leen yàlla yombalal luñ dundalee seeni njaboot te xool bëtu yërmaane jëmee ci njaboot boobu noonu te yàlla sàmm leen aar leen ñi bëgg am borom kër yàlla na leen ko yàlla yombalal ñi bëgg a denc soxna ñoom it yàlla na leen ko yàlla yombalal ñi ut liggéey yàlla na leen yàlla defal liggéey yàlla leen yàlla may liggéey niko am ba pare yalla yalla def barke ci seen liggéey bi ñiy yalla yal def kam kam ci seen bopp xale daara yi yalla len yalla may alquran def len ay tok tok ci ñu nek ay fodé xale école yalla len yalla may ay diplôme yu kawé bañ mëna liggéeyal réew man yalla len fi yalla bayyi te dëgëral len di seddal seen xol ci njaboot gi njaboot yàlla leen yàlla aar yii këfe ci jamono ji yàlla buñ mën ci ñoom dara la waajur yu bëgg ci ñoom ci mbaax ak ci jàng ak ci góorgóorlu ak ci liggéey yàlla leen ko yàlla defal yàlla aar ñëpp yàlla suturaal ñëpp yàlla méngoo ñëpp yàlla dimbale ñëpp moom rek lañ yaakaar yaakaaruñ keneen la jugee ci moom jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak si ñun loolu lañ gërëm lu dul loolu dafa tuuti ci bëti suñ sëriñ te saagara indi xayru ahmada man ku dul yonent sallallahu alayhi wa ndaw ci man sa ay may geureum mu ko man may deug deug ci yonantu sallallahu alaihi wasallam sallam laa bëgg mu jógee ndax yalla lepp lu am yonantu la ko may yonantu mu ne allahu wal muxti wa ana al qasim yalla moy may man may seddel yalla nañu sedd dañ geureum suñ jëm suñ jabo suñ jëri ñaan suñ xarit suñ soppé ak képp ko aju ci ñun yàlla ñu yàlla aar ah. ci yëngatu aar ah, ñu ci dal yang yàlla aaral yang na yàlla defal jàmm ci réew mi yal na yàlla dimbale ñu ko jiitee yombalal leen li askan wi soxla ci ñoom ñuy xew ci réew yi ñuy wër yàlla na ñu ci dégg doy yàlla buñ ko gis mukk ci àddina yal na di sàmm président de la république sàmm gouvernement sàmm képp ku koy liggéeyal ba lépp luñ bëgg a def Sénégal yàlla ko yàlla yom yàlla leen ko yàlla yombalal ba mu sotti suñu gën a gaawee ñooy suñu njiitu réew mooy suñu njiitu réew ñu muy liggéeyal ñoom ñoo amee ni ñuy doxalee réew mi te baax na ci di ñaan di ñaanal ñi nga xam ne kilifaay réew mi nit mën na koo jàppee politique waaye man politique ma waaye damaa xam ne comme ñoom lañ ñoom ñoom lañ dénk suñ mbiri àddina yàlla leen yàlla dimbali lépp luñ bëgg a indi fii ci réew mi yàlla na ko yàlla yombal lépp luñ indi fii ci réew mi bugg koo tasaare ci réew mi yàlla na ko yàlla barkeel. bilaay rasulullah sallallahu sant di gërëm journaliste yi nga xam ne saa yu ne dañ leen di fàtte te li ñuy def kenn defu ndax tey am na ñu nekk Dakar di wàccu benn xëy dañoo am gànt mënuñoo ñëw am na ñu nekk Afrique di wàccu benn xëy dañoo am gànt mënuñoo ñëw ñu am gànt mënuñoo am ñu nekk Amérique kazalik ñoom ñooy ñi nga xam ñoom ñoo leen koy tegal ba ñu dañoo nekk ak ñoom leen di sant leen di gërëm leen di ñaanal yàlla seen liggéey yàlla ci yàlla di def xar baax saa yu nekk lépp lu ngeen bëgg muy ko yalla yombal te yàlla aar leen aar seen yëngatu ar seen tal rawatina ñi nga xam ne ñi nga féetewoo ci fayda ci ci ci ci ci faydu bi muy ñu fi gis tey mën leen a ñoom ñëpp mais ñoom xam nañ seen bopp man tamit xam naa leen seen barabu liggéeykaay ak ni ñuy sonn ngir jëriñ ñi sori yàlla ngeen ko yàlla fay ci yëkkati ko ci gudd fan ci liggéey bu xarañ ci barke ci seen jëmm ak seen njaboot ñu ngi ñaanal ñëpp ñi fi dëkk ak ñi invité ñu ñëw am ñëpp yàlla leen yàlla fay te ful ko di ñaanal suñ sëriñ suñ mag alxalifa cheikh Mouhamadul Mahi ibn cheikh Bahi mbooleem sémb yi mu am yang kaya ko yàlla dëggal tam-tam juma ak ci mbay pour jëriñ doomu aadama yi yal ko yàlla dëggal mu teg ci ñaanal ñaanal magam tamit fan ak ko boleh mébétam te mébétam bu dara lu dul tasaare xam-xam ndax ba mu ràññee ba léegi ci loolu la ne ñu ngi ñaanal al imaam Cheikh Ahmed Tidiane Hamidou Cissé mi nga xam ne waxtu wi mu ngi ci tukki yàlla ko yàlla delloo si jàmm mu ànd ak bépp yiw ak màng yàlla dëgëral ko ay bëgg-bëggam ak ci mu